mel ne da ngay euh, raxas gaal wala da ngay waajal wala dafa am leen loo xamante ni moom moo tax nga nekk di fomp gaal. waaw gaal gi gis nga nu mu mel nii dafa jaar ci napp pétrole dafa jaar ci napp pétrole parce que tamit buñ la waxoon sax la ay ay ay ay ay ay ay boo ko fekkewul woon da ngeen naan sax euh, xëy na du dëgg wante gis nga booru gaal gi nii maa ngi koy raxas ak pétrole si suba ba léegi maa ngi koy raxas ak pétrole ci napp pétrole la jaar mënu ma la wax waaw mënu la wax na nag bateau moo këpp munu ma la na seen pétrole bi ñuy manque moo mu am fit parce que man du ma wax lu ma xamul mais daal pétrole moo nekk nii moom lay dind sama gaal gii te lii yàq na te naa pétrole boobu bu bu teeree fii dina yàq ñaari environnement dina yàqal picc yi dina yàqal tefes waaw napp euh, pétrole bi bi ñu koy pompé mu ngi si cent et quelques kilomètres de Dakar waaw ñun cinquante cinquante cinq kilomètres de Dakar lañ demoon kon nag ne yaakaar nañ ne waxuma ne man si boppam ne ci pétrole bi la mais yaakaar nañ ne pétrole boobu moom moo dal ci gaal gi waaw. ñu jël ci ci ay métuwaay parce que tey jii lii nii man la dal ak ñeneen ci ci Soumbédioune dal na leen xëy na waa boor bale ñoo jël feebar bi waaw xëy na bool ba bale ñoo jël feebar bi mais ñun euh, kii bii nii pétrole bii nii. ñun moom lañ dal waaw waa Soumbédioune daal moom moom moo leen dal nii ah man moo ma dal boog dal yeneen i gaal lu mat fukki gaal ci euh, distance boobu dal na leen waaw da ngay jënd essence essence laa koy nettoyer moom nga koy nettoyer muy wàcc nii waaw ba mu set essence bi waaw seer na essence bi seer na moo yi si boppam dañ leen dimbaliwul ci dara dañ leen dimbaliwul ci dara essence bi waroon na machine yii ñu waxoon tamit état dafa am benn affaire boo xamante ni daf ñu ko diggoon ba pare ñu am ci yaakaar loolu suñu yaakaar ren ren atum mool yi la li gën a metti mooy mool yi mool yi lépp lu ñuy wax ñun dañu arrière ba sës waaw fekk na bato bato bato yi ñuy wax nii chaque jour ñu kalaame leen ko fekk nañ mool boo xamante ni yàqal ko ci biir géej ay arme mool bi di kaas ñu yéegal ko ci bato bi taal ko bato yooyu ko taal xam nañ xam nañ xam nañ bato yi ko taal pourtant ay mool bu ñu defoon maas dugg ci biir bato dugg ci biir géej gi taal benn bato rek coow li ne ku te ñun yooyu ñun xëy na dalaguñu waaw mais mën nañ ci egg nag mais dalaguñu yaa ngi dégg ñun bu ñu bu ñu ñëwee deuxièmement ñi ñuy dikk ay licence ñi naan bàyyi leen licence de pêche yi ñoom chaque jour ñu jël ci licence de pêche yi di ci def loo xamante ku yéeg rek ne la di naa jël dix bato naa jël onze bato naa jël douze bato ba si fu mu toll nii ay trente et quelques bato da ngay jékki-jékki gis ay bato étranger yoo xamante ni ci biir géej gi ñoom si boppam maay yi ñu lay déclaré ak maay yi ñuy nappee du benn dañuy jël maay boo xamante ni moom la ñuy nappee sa baaraam bi xaju ci ñu jël ko suude ko ci kal bi loolu xam nañ ko bu ñu demee ba biir géej dindi de suude kal bi génne maay boobu bu ñëwee port maay bi ñuy déclaré ak loolu du benn waaw. immigration bi moom moom moom moom si boppam. coono gi moom moo parce que état moo ne woon man mool yi xam nga nit ki boo nekkoon ko dama naa la may jabar ju bees du ko sore moo ne woon dinaa leen may ay machine machine yooyu mayuñu ko sax parce que su mën nañ ne sunu xaalis la parce que ñun daf ñu cotiser loo si ñun li ñu yaakaar quoi daf ñu cotiser loo subvention bi parce que ñun permis de pêche waruñu ko on am si Sénégal parce que Mauritaniens yi amuñ musuñu am permis de pêche ki dëkk ci ki dëkkul ci dëkk bi mooy am permis de pêche ñun jënd nañ permis de pêche en tant que Sénégal ñu mu mel ni cotiser ñi génnee quelque machines ñaari machines gouvernement bi taxaw am na kër yoo xamante ni fu mu toll nii ma am na gaal yoo xamante yu bëri yi nekk si kaw problème machine yi nga ko bi mu jolee joxe machine ba léegi deux ans de cela wala trois ans ci li ren léegi daa euh, euh, euh, après une un mois bii moom joxe woon nañ dix machines si si Soumbédioune li ma xam laa wax yaa ngi dégg mais depuis boobu ba léegi ñun gisuñu machine yi ñu ngi nii toog di xaar. ñun mool yi ñun benn ñaari euh, kuréel la ñuy laaj la ñuy taxawal CLPA ak euh, euh, ni nga INAPAS INAPAS moom daf ñu jàppale bu baax parce que INAPAS lépp lu ñuy kaas si mool yi ñun fa lañ koy mën a kaase lépp lu ñu koy wax mais amagul doole amagul doole mooy état bugg ko reconnaître carrément carrément parce que tey mool jooy jooyu mool yëpp fa lay foom fa la fa la rongoñu mool yi di di di di di di xaw a fendee tuuti waaw loolu daal am na ci ci ci liggéey bi liggéey bi nag metti na metti na mooy da ngay xëy suba teel di uti ba sonn doo am parce que fa nga daan amee fa nga daan amee léegi bato yaa fay napp ay cinquante kilomètres de Dakar trente bato yi dañuy wàcc ba trente kilomètres de dakaar te loolu ñun ñoom euh, règlement yi antuwul lool règlement yi antuwul lool guddi gi boo toogee fii li ma lay wax nii man bu weddee dama lay woon preuve guddi gi boo toogee fii guddi guddi huit heures nga ñëw fii da ngay gis fekk ay làmp bato fii ci gannaaw île bi ñuy mbaal waxuma la di ñun fi ñuy nappee de fii ci gannaaw île bi ñuy mbaal crevette bi ñuy mbaal ñoom fan lañ koy jëlee fii lañ koy jëlee te si crevette mu ngi si taatu dëkk bi ñëpp xam nañ ko ñoom li leen di wax média bi li ñuy wax ci kaw ak li ñuy wax ñun pour yéen pour bëgg ngeen xam ko ñoom du benn gis nga boo bëggee xam da ngay ñëw laaj mool en tant que mool mool ku ko jàngul doo ko xam parce que ñun ñii euh, fii ba euh, ni sax fii ba euh, Maroc fii ba Tenerife mën nañ fa dem sans compas sans dara parce que li may wax nii mool xam na ko mool xam na dëlëñ xam na xam na langaan xam na bidéew cent quatre-vingt xam na xam na corof xam na euh, ngelaw ngelaw ngelaw jàll lépp xam na ko kon nag mool kese mën na dem ak moom mool bu moolee laa wax de waxuma la mool yoo xamante ne salaamaaleykum dañ ñëw jàng ko mool dugg fii dugg fii man mool dañ koy jàng comme ni ñuy jàngee école waaw te mool bi dañ ko maîtriser ñun dañ ko maîtriser carrément xam li ñuy wax nag ci mool yi. licence yi ñun amuñu woon droit jënd licence. mais yàlla def na d'accord nañ ci jënd licence yi mais mool dañ ko joxul gëddam yaa ngi dégg ñun bu ñu demee bay bay jënd licence machine yu ñoom yu mu ñu dig moo tax mais machine yooyu ñun gisaguñ ko gisuñu suñu bopp état bi nañu dimbali machine yooyu ñëw gaal gu nekk am machine ko gis nga fii clandestin yi problème clandestin yi ay menacé naan leen dinañ kuñ ci jàpp dinañ la tëj 10 ans loolu arrangé wu ko xam nga lan moo koy arrangé mool bu bees mool bi bëgg a toog nga jox ko machine boo xamante ni bu bees tàq moom lay liggéeyee mu toog ku am jabar ju bees doo ko sore déggoo li ma la wax mool boo jox machine bu bees day ciy tiitaru comme ni nga amee ca yëre bu bees loolu moom mooy wóor nañ jox machine yi gars yi ñi liggéey situation yi ñuy def ak ak affaire yi nañ jox machine mool yi ñi liggéey problème boobu rek pour ñu bëggee nit yi toog ci dëkk bi nañ liggéey sinon man waxuma ko de sinon déwén man xam naa ne day piir parce que moo li am nañ capable boo xamante ni mën nañ yëpp gaal sa nit du ko xam waaw bu du question ne yëpp gaal nag da ngay ñëw yëpp nii ci tefes gi nii nii tefes jëne noonu am nañ yeneen xam-xam yoo xamante ni mën nañ yëpp gaal te nit du ko xam. waaw man maa ngi sant yàlla di jënd si yàlla di la wax ne la fesu Sénégal maanaam bu mu suuxee dafa yàgg du tey xëy na tey la sax. ñàkk problème yi am ay clandestin yooyu ñu mën a taxaw di wax ñun ay jeunes lañu nekk si tefes bi juddoo fi yaroo fi màggee fi di liggéey di sant yàlla am suñu jabar am suñuy doom am suñu yaay am suñu pap nekk fekk suñuy mag ak suñu rakk am nga tey boo gisee xaafu ndaw yi dem yëpp ma découragé la rek parce que tey jeune mooy doxal société bi te ñun ay jeunes lañu à nag comme jëni ñu wax parce que dafa nekk ñun dañu nekk si benn lieu boo xamante ni maanaam surtout côté pêche artisanale bi ñun dañu sonn ñun dañu yàgg sonn ba tey dañu sonn parce que la dem di ko liggéey ñun duñ ko jëriñoo man dem naa Mauritanie dem naa Guinée nekk naa Sénégal te Sénégal laa di liggéey si géej yàgg naa liggéey si géej nag 97 ba léegi maa ngi dem géej mais comme duñu jël benn média rek loolu doxalul société ay jën bi yëg jën baag li war a am loolu day am président moom si boppam moom day feebar day faju kon feebar bu duggee dañ koy sante yàlla xam ni lu war a dugg la bu dee am na or ko ñun de wax dëgg yàlla ñu ngi fii waaye gisuñu ko yëguñu ko ñun fii gisuñu ko yëguñu ko amul ku mu fi daal mais ñamut daal tamit bu dee ay mool la ñu ñun dañ koy masawu parce que nekkul maanaam lu ñu neex tey da ngay dem jàpp sa jën am sa jabar am sa doom am sa famille ñu yaakaar si yow am na ñoo xamante ni barki Demba Ndiaye ba ñuy dem fii dañ leen abal paas te jàpp nañ seen jën mais léegi lan mooy problème te bato bi nga xamante ni tey day dem si géej gi mbaal bu ñëwee jënam si oto lay jaar jaar si avion dem Europe ñoom ñu seen bopp mbaal suñu géej jaay jël seen jën mu jaar si avion mu jaar si port bi jaar si bato jaar si oto jaar si avion dem Europe. ñun ñu nekk fii tey nekk doomu ndaw yi doomu réew mi parce que jamono yële passé si ñu ne luy suuxal luy luy luy dimbali économie dëkk bi lañ wax ñu defaroon ñu ay projet ay gaal xam nga gaal yi lii gaal la tey man su ma koy liggéey mën naa def huit cent mille wala sept cent mille léegi tey nga bëgg ma indil benn matière boo xamante ni ñun xamuñu ko xëy na nga proposé ñu ko ba ñu nangu mais pour man bii buy jar sept cent mille bi yow boo indee beneen da ko war a def cinq cent pour maanaam jeunes yi am ambition parce que man waxuma ak jeune bu amul ambition man jeune bu am ambition laay waxal ki bëgg a liggéey xam mooy kan fii ñu fi nekk ñëpp ñun heure bu ñu neexee mun nañ dem clandestin à tout moment nag càgg ni ko yaa ngi ñuy gis fii am na ñu dem wax ji bari na kii bi mais mun nañ dem à tout moment mais yii moo koy indi non ñun déggoo musuñu gis suñu bopp musuñu gis suñu bopp si géej gi du Senghor du Abdou juuf du Macky Sall Ablaye Wade xëy na Macky saala ñëw na fi def fi ay machine noonu noonu mais machine yi amul sens parce que tey boo wàccee yow euh, machine bi bi doon jar un million deux cent dem un million trois cent dem un million quatre cent nga wàccee ko ne ku am carte gaal boo déposé si tur bi ñu jox la machine déedéet comme maanaam machine bi mu jar un million quatre cent léegi yow boo defee carte gaal bi trois cent mille ñu jox la machine mais ñu amagul après bu ñuy jënd dañuy dem si un million six cent kon ñu amagul ñu amagul parce que bul sóor ñi am ba pare te affaire bi demeewul noonu tey nit ki boo koy jàppale danga koy fekk tey c'est la mu ne ak na mu siy yëngoo parce que dëkk buy dox ndaw a koy doxal loolu gars yi ñëpp xam nañ ko mais pourquoi pas ñun ñu nekk si benn pays boo xamante ni Sénégal yaatuwul yaatuwul yaatu boobu. pourquoi pas ñu xool jeunes yi fi nekk am ambition nangu liggéey am bul xeeba ah. ay mais ay ñaata banque ay GIE am na fi créer ay banque ay banque yoo xam ne tey nga koy créer pour jeunes mais tey kii jeune la mu ngi liggéey menuisier wala mu ngi liggéey tapissier wala mu ngi liggéey laa mais banque bi su fa demee su lebee fonds ñu lebal ko mu mun a liggéey su liggéeyee chaque weer ñu ne ko leen indi temps di joxe di fay ba loolu mot parce que boobaa tey nit ki ngay jàppale wala ki nga bëgg a jàppale tey da nga koy fekk ci sa ak nga xam ni moom mooy kan ba pare kii ko jàppale mu dem après nga jàppale ko mais à propos li ñuy wax si Macky Sall wala kii man yooyu sax du ma si wax parce que man benn jeune laa di yeewu di liggéey di jaamu yàlla di sant yàlla nag bu wér ñëw ma ki am million ñëw ma ki amul million mais man la ma war maa ngi koy def. mais ñun tey fii ñun ñoo fi ne ñun seen comprendre nga suñu papa yeeg suñu kii ñoom seen wàllu wéy na ñun ñoo fi ne su ñun la ñu yaakaar ñun si ñan la ñu yaakaar ñun si géej gi lañ yaakaar amuñu leneen lu ñuy yaakaar suñu lekkee géej gi la su ñu naanee géej gi la kon tey su amee ngay toog di dégg si tele bi ay médias yoo xamante ni maanaam loolu loolu ñun dañ ko war a dépassé xam lu tax ñu war ko dépassé parce que ay jamono Macky Sall toog na ne Sénégal émergent xam nga Ablaye Wade moo njëkk wax l'an 2000 Sénégal sera comme Paris à tout naataange mais pourtant li mu bien sûr moo nekk fii instant bi lekk bi seer na ah naan bi metti na courant bi seer na fi ngay tëdd sax yow jeune bi doo ko am te nga nekk sa dëkk kon ñu nekk ci benn pays boo xamante ni tey ki jógee beneen dëkk sax tey day ñëw fii ni am fi xaalis dem yóbbu ko dëkkam mais tàggkatu ay jeunes lañu suñu ay morom lañu ay 16 ans 20 ans 20 ans te pourtant seen dëkk lañ jógee ba ba Niger ñëw fi créé seen benn genre kii rek di la romb di la tàggal sa wee mais at bi sax xam nga ñaata millions la ñuy jëlee si sa koom-koomu dëkk di ko yóbbu si seen dëkk mais yooyu dañ ci war a saytu mais affaire bi du ay toog di wax parce que ñun dañ dépassé ay niveau toog di wax comme ay Macky Sall ak ay Marème Faye Sall ak ay kii ak yooyu noonu yëpp amul sens xam nga lan moo am sens ñoom ñoo nekk si kaw ñu ñëw. dès le ñu jàpp ci affaire bi xool jeunes yi nan leen nan lañ leen ñu jàppalee parce que fii tey dangay gis ay booy ndaw dañuy dem ba dañuy découragé lu leen di découragé loo lu leen découragé loo da ngay xëy nekk ndaw yow 1000 francs boo ndékkee tey doo ko yor léegi yow sa waa kër yi lay yaakaar kon tey bon bu ma gisee gaal guy dem Espagne dama si taxaw dem bu ma ko gisee man dama siy taxaw dem parce que lu tax ma siy taxaw dem mais amul la nga xamante ne tey man sama dëkk mi ma koy satisfaire non mosuñu gis suñu bopp déggoo li mu la yow yow li mu la xam nga ko man xam naa ko Macky Sall si boppam xam na ko keneen ak keneen ak keneen xam na ko dëkk bi du càggatu ko dañuy toog di wax ay dafa metti dafa metti dañ ko dépassé ñun dañuy bëgg a dee te sax ñun maanaam suñu mën a ko mën a waxee ñun dañ dee ba pare xëy na ñu ngi dox nii mais dañu dee ba pare ay dëkk bi dafa metti ak yooyu dëkk bi dépassé na metti parce que fii dafa amatul dara tey ñun lañu war a am ñun pour di ko dundee ñun vie familiale amatu fi da ngay nekk jeune liggéey at ba mu jeex pour nga jënd cent mille francs problème la kon ban dëkk lañ nekk. non wàllu wàllu licence de pêche tey ñun fii suñ dëkk la tey boo jugee Guinée nga war fa dem nga jënd licence de pêche un million wala huit cent mille wala neuf cent mille CFA nga dem ba Guinée pourtant booy retourné mën nga jàpp sa jën. navire Guinée bi jàpp la. ne la non bi nga yor du licence kii du licence laa du licence lee mais après da koy mujjee graissé da nga yëkkati xaalis wala nga yëkkati essence baa nga yëkkati jën sinon boo ko bañee mu teeral la si dëkkam te boobu day gën a ñaaw dañuy saisir sa matériel jël sa jën te yow ba ngay dem da ngay jënd essence ay un million 500 un am na ñoo xam ne 1 million 500 dañ koy jënd essence dañuy fere ay 2 millions nangam sàngam te bu ñu demee ñëw dañ siy suturloo na dara quoi. comprendre nga am na dara ñun ñu ngi siy sant yàlla parce que tey bu ñu neexoon ñu nekk si leneen def lu ñu neex ñun ñoo fi nekk ñun ñuy tey euh, famille la tey man su ma demoon léegi bu man tey bu ma demoon paan wala ma des fa léegi nga gis fii ñëpp koy yëg eh, diw waaye diw naa ni mais pour pourquoi pas tey léegi ñun suñu dëkk xoolal ñu nag Mauritanie ay 7 kilomètres mooy suñu différence tey boo nekkee Ndar dem Mauritanie dugg foofu mais dañ lay jàpp dóor la bal wala ñu jàpp la nangu sa matériel léegi ñun sunu gouvernement bi toog def cell loolu du yoon loolu amul fenn dëkk xam la moo koy doxal dëkk xam lu koy doxal mooy dangay jàpp ma jàpp même bu ñu boo xee ndey ak bàyyi da ngay jàpp ma jàpp tey su demee su ma amee su ma amee 3000 yow nga am 3000 boo ñëwee indi 2000 ma indi 2000 muy ñaata muy 4000 kon kër gi dara dina fa ne mais yow boo yeewoo suba ba ngoon amoo 2000 boo indi amoo 2000 bu ma indi kon kër ga la moo fay ne Fall dëkk bi dafa metti dëkk bi dafa metti ñun dañu sonn Macky Sall nag moom na jël moom moom moom moom mooy président bi jël initiative bu boppam ñëw taxaw jarul sax muy indi ay ministre ak ay kii moom si boppam moom moom président na ñëw taxaw si biir jeunes yi comprendre nga solo ba baax ñëw taxaw si jeunes yi laaj leen lan mooy seen objectif jeunes yëpp nag waxuma mool bi bàyyi mool bi bàyyi ma tapissier bi bàyyi ma menuisier bi bàyyi ma mécanicien bi bàyyi ma kenn képp kuy jeune nangu liggéey man jeune bi am ambition laa lay wax ci am ambition bëgg a liggéey waxuma la jeune bu amul ambition man waxuma si moom dara mais tey dañ ne liir liir bu fekkee nday jaatee sa mbagg la ñoom ñoo nekk si kaw nañu wàcc si kaw terrain bi ñëw ministre bi nag moom dama koy sànni ñaari kàddu ministre euh, kii Ndoye ministre de la pêche c'est gis nga nit boo koy fal dara day fekk mu xam lan ko fal yow journaliste nga tey man boo ma yóbboon si télé bi di ma wax di ma bëgg a wax loo yéene wala di ma ko def loo mënu ko xaw ma ko géej laa xam tey bu ma la dugaloon si géej mën naa la def loo yoo xam ne da ngay waaru xamoo ko kon tey soo koy booy doxee poste da nga koy dox ka ko xam ak ka ca jaar ka def ay at nga dox ko poste bi mu xam. mais man moom man ngi koy ñaan moom mu ñëw taxaw wax ak jeunes yi jeunes yi seen soxla mais lu ko mooy moom ah, lu ko mooy xam nga clandestin ngay dégg gars yi dem Espagne mais bi baa di nga déggaat beneen dëkk